ñu yëkkati euh, seen xel dalul euh, ci li nga xam ne mooy xar muy xam ci njëg geeg euh, ndax dinañ ko gis itam bokk na ci liñ gën a fësal muy ngooñ moo xam ne gisuñu ko njeexantal li nga xam ne manifestation yi également ànd na ko liggéey yi ñuy amal ci BRT bi. nga xam nga lépp ay point la yoo xam benn bu ci nekk mun nga ci def émission boo xam ne xëy na kii appréciation bi mu ci am lu bokk ak keneen ki bi mu ci am mm-hmm. ci milieu élevage mais defe naa ni ki war a jàmbat tey mooy kii sàmmul te bayul te war a tabaski parce que kooku moom xaru dina cher ci moom bëgg ak bañ <laughs> man ngi koy tooñee sama ay gars yi ndax man dama doon bàkkale samay xaru tabaski rek loo ma jox ma jox man leen demee de ren fii day cher day ñàkk <laughs> amul bàkkale amul gaayanoo amul doomu ndayoo <laughs> laissez-les moutons ici rek waxin la quoi cest xëy na ñiy def commerce nga xam dañ doon xaar xam nga xam nga tabaski dafa bëri ay système cest à man tey mun naa def opération tabaski te fekk na sax yëguma xaar parce que Senghor am na joof yow ñetti xaar métier du ko permettre mu jaay ko Birahim yor na benn sangal sàngalkaam wala ñett amul temps wu jaay ko yow am nga benn Kébémer mënoo am temps wu jaay ko mën leen gars indi leen ngeen indi ma dajale bu kii dajale kii dajale kii ni faa bi booy maa ngi def opération tabaski fii à côté ñu bëri ñiy def opération tabaski dañu maîtriser marché bi mais même bu ñu nekkee ay éleveurs yaruñu fukki xaar léegi ñooñu ñooy tiit ñooñu ñooñu la Mariam Ndiaye dajeel parce que ñooñu dañuy foog ni du ñu am nombre mouton yi ñu doon am pour mën a jaay bénéfice bi ñëw mais ñi nga xam ne dañu yor xar di jaay li tax ñiy def opération joxaguñu leen xar mooy ñi am dañu xam ni xar day jafe donc boo am bu jafe dootu gaawantu ci jaay bi da ngay téye garde en attendant léegi nag baane baane bi kii ne ci diggante bi moom du gis lu mu jaay ñooñu ñoo dajeek ñun xaw a tiit nag bi ci des ci wàllu ngooñ bi kii yar xalam fu mu nekk nii ba jamono jii ngooñ mu cher ak dund bu cher li mu ci traversé fu mu nekk mën na koo muñ fii ak tabaski du bokk ci jàmbat bi day continuer di xont ak juróom di sang di gën a yafal te ñu bëri ci ñu doon jënd di jaayaat ñu am duñu am bénéfice duñu gis sax ku leen jaay parce que ki yaral boppam day préférer jaayal boppam mais li am solo mooy kiy jënd na consommateur bi mhm. kooku mooy séentu taxawaayu nguur te kooku ci moom ci moom la ñu fi di metti te kooku moo dul gis fu muy jënd xaar ba léegi ministre de l' élevage mooy premier mooy premier ministre xamaguñu ban tànk lañuy ñuy fecc nguur gi pour mën a indi ay xaar muy toujours loo xam ne Sénégal daf ko war a weesu Sénégal li ñu am ci suuf Sénégal li ñuy génne ci biiru xaar par an di ko sànni toujours dama koy plaider di ko wax fii ñu ngi rend xar yi seeraas chaque jour lu mu néew néew néew dina ma téeméer xar yu ñu rendi génne ëmb bi ci biir sànni bu ci am ëmb bu neuf mois wala huit mois ñu jéem ko sauver yar-yaral ko mooy booy mbote yi booy di gàddu di jaay dugal ko ci benn couveuse mais loolu boo ko comptabiliser ci année bi doo xam ñaata la nguur gi interpellé woon naa ci ministre bi fi nekkoon foog ñuy veille ñu arrêté di rendi xar yu ëmb yi loolu benn la mhm. ñaareel bi ci des Euh, président de la république daf ko yaakaar la woon éleveurs yëpp muy vol de fii koo gis mu am espace euh, mun na bay lu ko permettre mu dundal juróom fukk wala téeméeri xar yi nga xam ñoom ñoo fay mm. nekk nit ñi am nañu possibilité investir ci wàllu élevage man ak samay morom wax dëgg yàlla xam nañu yoon bi xam nañu ni mu yombe te mën nañu koo dundal mais ñimewuñu ko kenn ñi mu wutoo sa kër lu ëpp juróomi xar parce que dañ koy sàcc te buñ koy sàcc Euh, mun nañu gaañaale sa njaboot donc yooyu yëpp nag moment bii lay xaar pour répercuter wu ki doon yar dootul am nombre bi mu am euh, kenn protégé wu ko dund bi moom cher na certes mais dañ ci génn parce que ngooñ baa ngi dugg si te ngooñ bi eggul fi mu eggoon daaw jéeg ba léegi passé gul fi mu eggoon daaw ça tourne autour de 6 000 cinq cent saako ngooñ bi budul loolu itam nit ñu ngi mbopp donc dund bi jafe na xanaa côté repas ak yooyu euh, moom mun na gën a cher donc yooyu yëpp na bu répercuté ci tabaski gi Birahim bu ñëwee xar bi mu jënde woon daaw 200000 mais mënu koo am 200000 bàyyi. Mm. fokk mu génne 300000. te xam nga ni jamonoy tabaski daaw ak jamonoy tabaski ren jamonoy tabaski daaw gën a neex de. Mm. heure bi daaw la mm-hmm. Sénégal ëppoon xaalis ka ren. ci góor-góorlu bi war a jënd tabaski. Mm-hmm. ça pose problème donc mënuñoo fexe ba tabaski gi moom du metti fokk mu metti moo tax nag am mbuuke xam nga mbuuke mooy xar bu tuuti li nga xam xalaat calculé ko sax jaay. ku am mbuuke sax dencal. mbuuke mooy mbote. mbuuke de bu xaw a mag mbote te xaw a xiibon xaw a mag mbote tollu ni kuy xaw a xiibon boo amee mbuuke téyel. Mhm. boo amee góor ndel téyel. Mhm. même bëy boo amee téyel yéen a ngi fàttaliku si. tabaski bëy baax na yéen daa amoon na fi biraay matul sax 5 wala ci lay toll. tabaski xar yi jeexoon ba xamante ni jamono jooju suñu yaay Aminata Mbengue Ndiaye moo nekkoon ministre après ci la ci amaati benn vision boo xam depuis mu nekk ministre de l'élevage amaatuñu problème yooyu. mais ki ko fi remplacé daa daje woon ak Bakary rek ak Sénégal jamono jooju amoon na ay jàmbaar yoo xam ni dañu ubbi woon ay bunt euh, comme ndam si yàlla si Omar Sow. Mm-hmm. ndeysaan mënuñu ëgsi ci moment yi te duñ ko bàyyi xel ñaanal ko doon ci jouer